te dafa baax ci liggéey bu mel nii ñi koy taxaw am cawarteeg def ko waaye am jotug def ko loolu rek moo waral ñu ne woon nañ jël ñi nga xam ne daal ci fànn googu mën nañ cee taxaw ni ci war a taxawee ñu jox leen ko kon loolu bokk na ci li ko waral ñaareel ba mooy it mbir moom mu mën a doon rek ku ko mën a sosit da nga dem ba ay jëmmi jamono nga jox ko ñeneen te lii day tax ba buñ eggee foofa ci war koo ak ñoom yor gi mën a yomb ci mën a yomb ci ñoom yaakaar naa loolu lu mën a am xel mën a nangu la te it yaakaar nañ ne liñ ci xaar ci jëf ju rafet ak jëf ju baax danañ ko gis ndax wax dëgg yàlla ñëpp gis nañ ne Euh, ñii ñu ko jox laataa sax ñu leen koy jox euh, définitivement ñu di ko yor am na ay xalaat yoo xam ne ay jëf yoo xam ne commencé nañ ko jëf te loolu day wane rek seen taxawaay ak ñor bi leen mbir mi ñor ak bëgg koo xam ne bëgg nañ koo liggéey ba lii nga xam ne sos nañ ko te bëgg mu law mu mu mën a dem fañ koo fañ koy séntu kon yaakaar naa loolu rek mooy li ma toon a leeral te sëriñ Bachir leer nañ ko waaye bëgg naa nag ci turu mbooloo mi gërëm suñ bas ndax wax dëgg yàlla mat naa gërëm ci taxawaayam bu rafet bi mu am bi mu nekkee ci bopp mbooloo mi ba léegi ndax xalaat bi bi mu am ci ñu ko xalaat la bokk waaye ba jot taxawaay waree ci jëf ak ci wax bàyyi na yitteem dox ko ba mu toll fii mu toll xañ na loolu keneen ku mu doon ci ñun noonu nga am taxawaay boobu waaye day tolloog mbir mu ne rek faaw mu am ko ca taxaw taxawaay boo xam ne mooy remplacer taxawaayu mbooloo mi ci des te loolu yaakaar naa ñun ñëpp gis nañ ne Sëñ Bass taxawaay bi mu amoon ci mbooloo mi ngir mu sosu waaye ngir mu doxee ni mu doxee taxawaay bu rafet kon ñoo nit wax dëgg amal nañ ko njukkal war nañ ko jee sant bu baax a baax ñaan suñ borom mu dëgëral ko fay ko yéeneem te it lañu ñu ñun it ba yéene ji am ci mbir mi mu egg suñ ko bëgg a ci moom it mën nañ cee boole ñëpp ñi nga xam ne rek am nañ ci liggéey bi ñëpp ñu nekkoon ci bureau bi ak kilifa yi nga xam ne suñu kilifa lañu woon amuñu woon jotu yor ko waaye teewut ñu ngi doon accompagner di ñu xelal ñu xalaatal di jëmmal daayira bi ci seen teewaay ak ci seen jëf ñun ñëpp it dañuy duggaale ci biir ngërëm ndax loolu lépp bokk na ci li nga xam ne mooy tax mbooloo yi mën a mën a dox kon buñ weesoo loolu dañuy rek dugg ci présentation bureau bi nga xam ne. moom lañ moom lañ taxawal te ñu war a saytu mbooloo mi bureau boobu euh, comme ni ma ko waxee sànq am na lu ci xaw a bees ndax am na ay wayjur yoo xam ne dañoo fekk ci mbooloo mi ba tax na liñ koy taxawalaat ca bopp ba dañ taa teg sëriñ Cheikh Asma Mbakke moom sëriñ Fallou moom sëriñ Bachir mooy président wu daayira bi léegi sëriñ Cheikh Asma moom sëriñ Fallou moom sëriñ Bachir teewul nag sëriñ sëriñ Cheikh waa mi ngi nii teewut sëriñ Bas moom sëriñ Modou Abdoulahi moom lañ proposé pour mu wëy di nekk président d'honneur ngir. taxawaay bim amoon ci mbooloo mi waaye ngir ci mën a jëmbal mbooloo mi saa yi suñ ko soxlaa ci yenn yi kon bureau bi nii la tëddee sëriñ Cheikh Asma moom sëriñ Fallou moom sëriñ Bachirou mooy président bi am nañ lu ñuy wax coordinateur général nga xam ne lu jëm ci xañ na ci wàllu liggéey beeg ak lu jëm ci secrétariat bi bind meeg yooyu moo koy yoraale kooku ñu ngi ko jox sëriñ Moustapha moom sëriñ Abdoulahi moom sëriñ Moustapha Bachir kiñ ko toppal mooy soxna Bali Fall soxna Bali Fall soxna Bali Fall moom soxna soxna moom sëñ soxna Soda soxna Bali moom soxna Ndey Diop moom soxna Sow moom Sëñ Bachir bokk na ci ba tey ci bureau boobu benn comité de communication boo xam ne sëriñ Moustapha Guèye moom sëriñ moo Guèye moom soxna Amira moom soxna Serigne Bachir moo ko jiite sëñ sëriñ Moustapha Guèye ñi bokk ci comité. de communication boobu mooy sëriñ Xafis Mbakke moom sëriñ Fall moom sëriñ Bachir soxna maam jaaraa moom soxna moom moom sëriñ Moustapha Bachir sëriñ Cheikh Bamba Mbakke moom sëriñ Abdou Lahat moom sëriñ soxna Astu Mbakke Xaadim soxna maam Jaara Mbakke Naawel sëriñ musa Mbakke moom sëriñ Moustapha moom suñ Moustapha Bachir ak soxna Amiram Mbacke yaakaar naa soxna Amiram suñ Bachir moom suñu Moustapha Bachir la suñ Bas am na benn comité wax xam ne mooy wàllu finance kooku ki ko jiite mooy Serigne Abo Mbacke moom Serigne Moussa moom suñu Moustapha Bachir ñi bokk ci comité boobu mooy soxna maam Fatim Mbacke moom Serigne Thierno. moom sëriñ Mountakha Bachir moom xanaa ak sëriñ Mouhamad Mbakke moom sëriñ Fallou Bachir. am na benn comité d'organisation aussi boo xam ne sëriñ xaarim Mbakke moo ko jiite sëriñ xaarim sëriñ sëriñ musa sëriñ Cheikh Maodo. suñu <laughs> xaarim Bamba suñu xaarim Bamba Mbakke ah turu yees la kon sëñ Cheikh naa laa xamoon moom soxna Muslim Mbakke moom suñu Cheikh Assou Fall membre comité d'organisation boobu mooy Serigne Abdou Lahad Mbakke moom suñu Moustapha ah suñu Abdou Lahad Mbacke moom suñu Abdou Lahad moom suñu Moustapha Bachir ak sëriñ Ahmad Bachir Mbacke moom sëriñ Moustapha Abdou Aziz kon lii mooy euh, biru bees bi nga xam ne taxawal nañ ko ak membres yi nga xam ne ñoo ci ñoo ci bokk sàkku ci yéen rek ngeen ñaan ñaan bu baax a baax teyit ngeen jàpp ci ba seen liggéey mën a yomb niñ ko niñ ko bëggee am na benn commission culturelle aussi boo xam ne sëñ Abdou Lahad moom sëñ Thierno moom sëñ Mountakha Bachir moo ko jiite soxna Amirama moom sëriñ Bachir Tip ca bokk ak sëñ Abdou Hakim Lo ca la bokkoon xanaa ak sëñ Abdou Hakim bokk waaw ak ñenn ñoo xam ne xëy na seen tur teewul wuñ ko fii eh, bi ci des mooy ni ma bëggoon a leeral rek mooy. ñi nga xam ne ñoo bokkoon ci bureau bi nga xam ne ñoo ñoo génn créé nañ benn comité boo xam ne comme ne ko sëñ Bass waxee mooy conseil consultatif nañ ko tuddee boo xam ne liñ ci jublu rek mooy euh, ànd ak ñi nga xam ne ñoo yor yëf yi léegi ci wàllu xel ci décision yi nga xam ne lañ jël ak fi nga xam ne foofu lañ bëgg jëmee liggéey bi lépp lu jëm ci wàllu xel leen lépp lu jëm ci wàllu accompagner leen ci niñ ko mane ñu man koo ñu man koo ñu mën koo taxawee niñ ko war a niñ ko war a taxawee comité consultatif boobu man lañ doon wax ma ma jiitu ko waaye yaakaar naa moo ko suñ bas mayee dama bëggoon rek eh, delloo ko ko mu jiite ko nekk président du président commission conseil consultatif yaakaar naa moom moo koy gën a man taxawaayam ak ci ak ci jëmbalam kon suñ bas yaakaar naa ma ko mayee rek ma ma delloo la ko mën naa nekk sa ginnaaw nag saa sama wooye ma ñëw waaye waaye waaye jiite gi moom nan ma ko jéggal hmm? kon léegi loolu daal mooy mooy li nga xam ne moo fi am ci ay coppi coppiku ci wàllu bureau bi officiellement moom lañ moom lañ jàpp ne léegi ñooñu ñoo yor ñoo yor liggéeyu daayira bi kon nañ ànd ak ñoom ci loolu taxawu leen di jëmmal daayira bi ci teew ndax teew gi it moo ci ëpp solo nag dañoo woote ngir defarug mbokk dañoo woote ngir daje bu ndaje bi duut euh, amee ni mu war a amee rek day indi ay jafe-jafe. ci njiital sëriñ Cheikh Mbacke moom Serigne Mouhamadou Fado. Mouhamad sëñ Mouhamadul Bachir eh, di ci turu bureau bi ñu ngi sant bu baax a baax a baax ci ñi nga xam ne ñooy suñu mag yi nga xam ne ñooy jiitu woon si daayira bi eh, taxawaay di leen sant bu baax ci seenu taxawaay bu rafet ak liggéey bi ñuy bi ñuy liggéey si daayira bi ba mu mën a mel nii ba ba ñu mën a jël ba lépp mën a yomb si ñun. di leen sant ci njiital Serigne Bachirou ak ñi nga xam ne moom la ñu àndaloon lépp ci liggéey bi di leen sant bu baax di leen jaajëfal di leen euh, tàllal loxo yi comme ñoom sax xëy na ñi ñi ngi si waaye ñu gën ñoo jàppale rek ci ci ci liggéey bi ba mu gën a mën a oyof si ñun bu baax a baax a baax a baax euh, ginnaaw loolu euh, comme niñ ko waxee ñun comme ni ko Serigne Bachirou waxee bureau la boo boo xam ne. du jërul ma si jaaraat ci euh, président la ak coordinateur général euh, ak prés euh, comité am na comité organisation am na comité communication am na tamit comité culturel finance ak comité culturel ak comité de stage bi nga xam ne moom si Cheikh Abdou mi moo ko moo ko moo jiite yooyu la ci bureau boobu nag bi ñu ko sosee léegi xëy na tey lay doog a officiel waaye tooguñu woon rek di xoole euh, dooroon nañ euh, tàmbale di soobu si si liggéey bi ba am ay liggéey yoo xam ne jot nañ koo taxawal am yoo xam ne tamit jàpp nañ ne yoo xam ne jàpp nañ buñ ko yokkee si daayira bi dina gën a dox ñu jéem ko see yokku bokk na si euh, li ñu njëkk a def bi ñu ñëwee dañoo taxawal ay section ci dëkk yu wute lu si mel ne tuubaa gi am na ab section ak fu mel ne Kaolack ak fu mel ne Diourbel ak fu mel ne dakaar ni noonu tamit Tiib section yooyu li si jublu mooy gën a yombal daje yi ak gën a gën ngir nit ñi gën a mën a miinante gën a xamante bi gën a yomb waaye liggéey bi mu gën a jàppandi moom lañ si jublu ci loolu euh, taxawaloon nañ li dañoo tax section bu ne am na njiit lu ko jiite mu am bureau bureau bu ndaw bu dee fii si Touba Serigne Saliou Mbacke moom sama soxna moom Serigne Moustapha Bachir moo ko jiite euh, am na ay ay ay am na ñu yor wàllu communication ca bureau ba am na ñu yor wàllu ñoo wàllu finance booba waaye ñooñu ñooñu yor wàllu communication wàllu finance dañu bokkaat ci bureau bi nga xam ne mooy bureau bu mag bi nga xam ne moo yor communication wala bureau bu mag bi nga xam ne moo yor finance bi bu dee fee ci Dakar man maa ko jiite mu Moustapha Mbacke mu Serigne Abdou Lahad mu Serigne Moustapha Bachir Euh, am na tamit ñu ko noonu tamit comme comme comme ñu amee ci Touba am na ñu yor wàllu finance am na xam ne ñoo yor wàllu tamit communication ñoom it noonu la ñuy bokkee waatee si bureau bu mag bi. am na fële sa Kaolack sëriñ Cheikh Asfal moom sëriñ Cheikh Abdou moom sëriñ Cheikh Asfal moo ko jiite am na moom it am na ñeneen ñu mu àndal si liggéey bi am na fële si Diourbel euh, sëriñ Mahamadou Hafiz Mbacke moom sëriñ Mahamadou Fadal moom sëriñ Mahamadou Bachir moo ko jiite ak ñeneen ñu àndal si liggéey bi am na fële tamit ci Tiib. Euh, Cheikh Abdou Akim Mbacke moom sëñ Bachirou ak sëriñ Bachirou moom sëñ Bachirou Bachir Tip moom sëñ Moussa Bachir ak sëñ Bachirou Mbacke moom soxna Muslim Mbacke moom sëñ Moussa Bachir ñoo fa nekk ak ñeneen ñi nga xam ne ñoom nag ñu ànd nañu ñu ànd ak liggéey <coughs> loolu mooy section yi section yi nag euh, li gën a nekk jubluwaay bi dëgg bokk na si ñu ne moo taxoon ñu bu ngeen seetloo teg yi yokku na ndax def nañ ko 6000 bu njëkk dañ naan def xëy na am na daan ñi nekk 5000 ñu def ak 3000 waaye léegi dañ ne dañ koy def 6000 mu ne ci année bi 6000 yooyu nag dañ ne section bu ne dañuy dajee weer bu jot ñu weer bu jot ñu dajee ku nekk ci membre yi joxe 500 euh, 500 boobu 6 mois yi 12 mois yi mooy mooy mooy mooy 6000 yi loolu loolu lañ ci jur nga xam ne. bu boobaa simili dina nekk loo xam ne day day day day jàppandi ci ci ñëpp ñëpp nga xam ne mag ak ndaw ak jigéen ak ñëpp mën na mën naa jàppandi si ñoom te te nañ ko joxe yenn coono yi du leen ci du leen ci euh, bu dee am na si 500 boobu ñëpp ñu ngi koy doxal commencé woon nañ ko lu tolloog mois ci gannaaw depuis weeru mois ko commencé woon doon doxal nañ ko ba am na si ñoo xam ne ñoom seen i teg ci foofu lañ ko jot a jaarale comme nag euh, amaguñu woon sens dajeeg nit ñi comme daje bu mel nii. communication bi dese woon naa jàll waaye comme ñu jéem tey moom euh, occasion le si ñun pour ñu jéem koo jàllale ñu xamal ñëpp tamit ne section yooyu lu existe la lu am la ci mi ngi am na Touba ku nekk fa nga nekk nga jéem a xool section ba euh, nga nga nga nga nga jéem saa bokk ngir it dana dana gën a yombal liggéey bi si lépp lu lu ñu lu ñu lu ñuy def section yooyu tamit bu ngeen seetloo euh, rang kii dajee bi comme lu mel ne tey daal na am Eh, benn kii boo xam ne dañ daan dañ daan jox nit ñi ñu wax seen xalaat si lu doxal daayira bi gi mel noonu section yooyu bokk na ci loolu boo nga xam ne tey bokk bokkul si programme bi liñ nañ waaye bi ñu ko dindee fii bàyyi wuñ ko mu dem ndax ay mbooloo bu ñu seexee dara faaw ñu am ñu si ñu am nañ droit di joxe seen xalaat nuñ ko gisee te comme ndajeem yi day day xat ba yenn yi guddi gi day moo tax ñu ne léegi nañ ko nañ réunion yi ñuy def si wi nañ nañ nañ fa yóbbu loolu ma ci réunion yi bu ñu dajee ba joxe àddiyee waxtaan dañuy waxtaan nañ fa joxe xalaat ku ñi sa teew ñoo xam ne am nañ lu lu ñuy waxtaanee lu ñu lu def ku ku loo xam ne gis nga ko ne jàpp na ne dina dina doxal daayira bi nga wax ko koo xam jàpp nga ne du am loo xam jàpp nga ne dina si gàllankoor wax ko bu ñu daal di ko bàyyi xel di wax xool koy doxalee. loolu moo mooy li nga xam ne moom lañ ciy soxla di ñaan ñëpp nag ñu ñu ñu jéem see bàyyi xel bu baax a baax ku nekk. ñu ñu bàyyi xel section yi te te si jéem a bokk ndax euh, ñor nañu lool lool lool daanaka suñu suñu suñu liggéey lu si bëri ci lañ ko tënk euh, am na si dëkk yoo xam ne am na benn benn yu fa nekk xëy na ay cas particulier dinañ ko après dinañ dinañ xool nan nan lañ koy lijjantee ba euh, comme ay foo xam ne benn ñaar ñi ñoo fay nekk dinañ xool nu ñuy lijjantee ba day defar ko incha allah si suñu liggéey yi ñu commencé woon bu weesoo taxawal section yi amoon nañ ay Euh, xeeti euh, don yu ñu defoon lu mel ne bi ñuy doog a door rek euh, jëndoon nañ lu toll ay ay ay ay poubelle yóbbu woon ko si péncu ndaara meneen mi comme ñi ñi ko yegoon bëri wul communication bi desewoon woon naa jàll ndax booba dese woon nañoo am numéro yi ñu bëri wala ñu bari ñu amoon seen numéro numéro yu doxutoon moo taxoon ñu ñu ñu ñu daal di ko tënk rek daaw def gaaw def ko comme àddina noo la demee kenn kenn mënut dajal lépp ñu ngir ko ngir tàmbale rek ñu daal di jënd lu tolloog fukk ay fukk fukk ak ñaar ci ay ay ay ay poubelle yóbbu ko si jox ko aadiya bi ñu def ko si pencum Daaru Minam bu ngeen solo mooy tey foofu ñu bind tey poubelle euh, yooyu ñu bind DFM daayira fulkul maçon lay tënk loolu mooy li defoon ci ni yi noonu it taxawaloon nañ ab ziar ziar boo xam ne dañ koy ziar ki fi nekkal sëriñ Basiru sëriñ Mouhamadou Mountakha yàlla ak suñ yàggal suñu borom yàggal te Mm, defoon nañu ziar ci koor gii jàll ziar bi it ñu laajoon ci ay addiyee yóbbu ko jën jëndee ko lu ma ne ay saako sukar yu yu mel noonu dam jox ko addiyee sëñ bi mu santoon bu baax ñaanaloon ñu baax a baax ziar boobu nag bëgg nañ mu nekk loo xam ne day day day sax day nekk lu eh, année bu at bu ñett dañ ko dañ ko ci dañ koy def moom moom ziar boobu incha allah eh, bu bu ñu demee ba ba ba mu jublu si dinañ si waxtaanaat lu lu lu si mbooloo mi lu ñu si war a yëg rek incha allah dinañ ko dinañ ko yëg bu baax a baax a baax coppite yu si am ak lu ñu ci yokk ak yëpp rek incha allah dina dinañ dinañ ko yëg bu baax a baax a baax moom ziar boobu ñi euh, xam na ne ñaari at at mi wala ñetti at si ñaar ci at ci lu toll ak ñaari at tàmbale woon nañ ca ci talaata gi di jàng di woote foo am njàngum kaamil euh, ki ñaan euh, ci barabu Soxna Jaara bi jàngum kaamil moom it bokk nañ ci li nga xam ne euh, am nañ yéene yi mu nekk loo xam ne lu luy sax lay doon mooy talaata gi nga xam ne moo moo sës ci màggal Porokhane gi ñi euh, incha allah dinañ fas yéene nañ mu mu def ko mu gën a yaatu xëy lu mel ne génn ko barab ba xëy na ñu génn ko mu yaatal ko bu baax a baax a baax bam bam euh, ban ñëpp man cee man cee man cee gis bopp incha allah dina am ay soppite moom it bu demee ba jub Porokhane gi lu lu si am rek incha allah dinañ ko dinañ ko yëgal ñëpp bu baax bañ bañ yëg ko Euh, ñi ñaan ñëpp it ñu bàyyi ko xel te te di te di di di say di say teew di di ko sàkku ci ñëpp nag ndax day day day am solo mooy lu mel na ziar bi ak ak ak ak bisu poroxaan boobu mooy ñaar yoo xam ne mooy mooy bisu daayira bi mooy bis yi ñu am ci at mi ñu ñu ci sàkku ab dëkk te waaye ñëpp ñëpp incha allah lu ci lu ci mat a yëg rek dinañ ko dinañ ko yëg euh, niki noonu lu mel noonu ci. Euh, ni ki noonu ci comme ci bis bi lu jëm ci bis bi bis bi bisub tay bi kon gis na am na ay changement yu si am euh, soppite yooyu euh, ci jigéen soxna yi ñu ngi doon am am ay hôtesse yoo xam ne dañ koy dañ koy dañ dañu dañ ko waxoon na dañ koy jënd comme ren euh, dañ koo yeex xalaat ba ni mu waroon a jàllee jàlleewu jàlleewul noonu waaye ñu ñu ñu xam ne lu ñuy lu ñuy tàmbale la rek waaye bëgg nañu mooy mu kon ne ñi incha allah ñu koy ñu koy ñu koy ñu koy def hôtesse hôtesse yu ñuy def incha allah moom it dinañ ko dinañ ko dinañ ko dinañ fexe ba lu saa yu jublu seetee ñi ñi te ñoom it ñi teel saa taxaw ak ña ko ña ko jiite ñu teel caa taxaw ba ku ko war a yëg ko mu mu am nu mu kii ndax mooy mooy lu lu mu gën a moo gën mooy gën a rafet. am na ñu ñu ko tàmbale ren comme ngir bañ a xaar waaye incha allah bu yeneen année yi xam naa ci la ji lay gën a dox. ni ki nooy bokk na si. loolu mooy yi nga xam ne jotoon nañ ko def waaye nag leen ci tur bureau bi tam ñu ngi leen di fàttali ne bureau am nañ ay liggéey yu bëree bëri yu ñu xaat te incha allah ñi ngi ñi ngi ci te di leen ñaan rek ngeen ngeen ngeen jàppale ñu si bu baax a baax a baax te ñaanal ñaanal leen ñu tamit ndax mu mu oyof bu baax a baax euh, incha allah am nañ ci ay ambition yu rëy yu lu si mel ne ci wàllu xam-xam ba gën a cee liggéey bu baax a baax a baax a baax baax léegi ci jamono bii rek am na am na si waa commission culturelle am na si euh, liggéey yoo xam ne ñu ngi si incha allah bu noppee ñu ñëpp dinañ ko yëg mu muy liggéey bu ama solo ci wàllu xam-xam euh, ci su euh, ni ci wàllu social comme ni ko defee woon ci kuréel yi ngi ñi ngi bëgg nañ tamit mu am si yeneen yu gën a yu gën a mu gën a yaatu ak def yeneen yeneen don yoo xam ne yu am am solo yoo xam ne fu ñu fu ñuy di dimbale nit ñi ci côté bu nekk côté social bi ci wàllu wàllu wu ne di leen loolu it bëgg nañ ko am am nañ ci yéene te bëgg nañ at mu at mu jot lu mu néew néew ñu ñu ñu def si lenn euh, loolu daal mooy li nga xam ne mooy mooy mooy mooy kàddu yi nga xam ne moom la ñu waroon a euh, yëkkati ci ci ci ci gàttal xëy na sunu lott ci ma dañ lott ci wax moo tax mënuñu ko jàllee nañ ko nañ ñu ko nañ ko dicté waaye ëppoon na lii waaye gënoon naa leer yi lii di di di tàllalaat ñëpp da loxo rek di leen wax ne daayira bi daay sunu daayira lañu ñun a ko moom ku nekk rek mu jàpp ne moo koy doxal lu si sooxee moom la waaye lu doxit mooma buñ ko defee rek yaakaar naa ne lépp dina jàpp di soñaan nit ñi ci wàllu addee ju baax ndax mooy mooy mooy tax ñu mën a ñu mën a li ñu li ñu bëgg te muy lu rëy mu ñu ñu mën koo am Euh, di surtout di sunu mag yi ñu ngi leen di ñaan bu baax a baax a baax ñu ñu jàppale ñu jàppale ñu ndax bu dul ñoom rek duñ mën a duñ mën a dem duñ mën a dem ndax ñooñu si jiitu ñoo gën a xam li si nekk ci kay jafe-jafe euh, bu buñ ñu jàppalee rek yaakaar naa lépp rek dina dina dina dina dina jaar ci yoon euh, xam naa di yemale foofu kàddu yi rek di ñaan yàlla ñu fekkeewaat ko at yu bëree bëri. muy daayira bi di gën a jëm kanam te rafet nañ jot na dina dina jëm kanam ndax lu yàlla rek ko tax a jóg te lu yàlla tax a jóg moom mm, suñ borom a koy doxal boppam euh, asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. suñu su ma ñëw fii yaakaar naa moom lañ tànnoon pour mu modéré waxtaan bi. wasalaatu wasalaamu ala ashraf almursalin sayidina wa maulana muhammadin almakin wa ala wa ashaabihi sawi ridwani wa tamkin asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu nuyu bu baax di leen ziyaara di jiital ci nuyoo bi ak siyaar bi sëriñ Tuuba Cheikh Sidi al di ñaan yàlla yàggal ko fi lool te wéral ko te dolli ko tawféex ba naal yim am ci liggéeyal ko Serigne Touba yëpp suñ borom may ko kattan ak tal bam defe ko ni mu ko bëggee waaye di ñaanal suñu jëwriñ ju tedd ji Cheikh Mouhamadul Mountakha al Mufaddal comme niñ ko ñaanale kilifaam gu tedd googu suñ borom dolli ko wér ak tawféex ak mboolem njabootuk Serigne Touba gi topp seen ginnaaw ñoo ngi ñuyu ñépp di leen siyaare bu baax di jiital ci nuyoo bi ak siyaar bi sunu kilifa yi fi teew rawatina kilifa jotaay bi Cheikh Mouhamadou Bachir moom sëñ Moussa moom kilifa jotaay bi ñu ngi baax sëriñ Mouhamadou Mbacké moom sëriñ Moustapha di mbokk ci sëriñ Abdul Xaadir mi nga xam ne moo ñuy bëgg a defal waxtaan wi tey ñoo ngi leen di nuyu bu baax di leen jox seen wàccuwaay di leen ziyaare bu baax waaye di leen ndokkeel ci bis bu tedd bii nga xam ne moom la génn muy bisub sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul di cant di ñaan ngëneel nga xam ne moom la ci sëriñ bi dige waaye ngeneen yi nga xam ne moom la ko ci boroomam dig ci di ko ful ay maye di ko fulal ay mayam ak i payam di ñaan mboolem coono yi ci sonn ak liñ ci yéene woon a sonn te mënuñu ko yëpp di ñaan suñu borom subhaanahu wa taala mu mott yu ñu ko te nangul ñu ko ñu ngi feggoo ak seen mbokk di sunu mbokk ñun ñëpp ñu gën koo xam ci Cheikh Abdoul Khadir ibnu sëriñ Mouhamadul Moustapha ibnu sëriñ Abdul Asis ibnu Cheikh Mouhamadul Amin Baara ibnu Xaadimu Rasul mu fas yéene ñoo moom it nag ku ne xam na ne sëriñ Moustapha Abdul Asis lu ñu woote ci kër Cheikh Mouhamadul Bachir ibnu Xaadimu Rasul dee ko ca mën a bàyyi ndax sun borom daf koo jox cërub mu bokk ci ñi njëkk a ci sëriñ Touba. ci ñaari anam kon te anam genn gi mu bokk ci silsila bi nga xam ne moom la ko yàlla jagleel ci Cheikh Mouhamadul Bachir kon képp ku laal ci moom lu ñuy woote ci kër Cheikh Mouhamadul Bachir am nga ca ab cër loolu moo ñu lëkkale ak moom gannaaw càllale gi gën a dëgër nag muy asaba gi nga xam ne moom lañu yàlla boole mbokk Cheikh Sëriñ kon Cheikh Abdoul Khadir moo dikk tey fas yéene ñoo àndanteeg ñun ñu fàttalente lenn ci li nga xam ne moo ñu fi dajale muy ak bokk ku ne xam ne jotaay bii dañu ko sosoon ngir gën a mën a jokk sunu bokk ci sunu biir xalaat yi taxoon jotaay bi sosu mooy ne gis nañ ne ak bokk dañ ko war a jokk ci anam yu bari yu wér yoo xam ne lu mënta ñàkk la ginnaaw boo xam ne yàlla daf nu koo digal waaye ginnaaw boo xam ne sëriñ Touba ci jëm boppam mi nga xam ne amuñu lu dul moom wax nañ ne wax na ne li tax mu tànn askanu Mbàkke wàcc ci ñoom bokk na ci fonkante fonk gu ñu fonk seenu bokk ak fonk seeni kilif wax nañ ne Serigne nee na li tax mu tànn askanu Mbàkke wàcc ci loolu bokk na ci waaye mu amaat ci beneen jagle goo xam ne si amu Mouhamadoul Bachir radiyallahu anhu ku ne xam na ko ci jokk ak bokk ak jokkale ay bokk suñ boroom defal ñu cër boobu ci moom taxoon ñu xalaatoon ne jokk ak bokkukat lii tax mu mën a am fawu ak xamante da cay jiitu kon loolu bokkoon na ci li sosoon ndaje mii ah, ñu ne nañ ci sos am ndaje ngir di ca daje daje ba lu koy waral ngir ñu man caa xamante ndax xamante ci la loolu di mën a juddoo ay bokk lu ñu jegee jege bu fekkee xamantewuñ buñ dajee ci mbedd itam ku nekk day romb sama morom njariñ loolee mu am nag moo taxoon ñu xalaat ne buñ dajee ñun suñ biir ku ne xam na ne ay bokk yu daje ci seen biir ah saafaxante nuyuwante yaakaar nañ yërmandey yàlla wàcc ci ñoom comme ni nga xam ne noonu la ko xadis yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waxe kon buñ dajee ngir xamante kenn ku nekk xool sa moroom bëtub mbokk waaye xool sa moroom bëtub yërmande loolu dana tax xol yi di gën a dajee xamante bi gën a am te bu xamante bi amee jokk gi mën a am ndax kilifa gu baax da daan wax naan xamul bëggul bëggul wutul waaye wutul amut kon ay bokk luñ jege jege buñ xamante wul rek xamante googee nag si Abdul Xaadir mii dañoo bëgg mu waxtaan ni waaye fàttali ñu ci lan mooy ak xamante lan mooy ak bokk nan lañ ko war a jokke waaye jëmmi jokk ak bokk ci jëmmi boppam nag ban taxawaay la am ci société bi waaye ban taxawaay la am ci lislaam waaye ban taxawaay la am ci social waaye ban taxawaay la am ba ci économique dana ci wax incha allahu ci anam yu bari njariñ yi jokk ak bokk danañu ci wax waaye jox ko ak bokk itam lan mooy xukmu maam lan man mbir la ak lum ñu mën a jural kon incha allahu taala ñu fas ko yéenee teewlu bu baax ah, taatan ci ay njariñ am nañ ci yaakaar bu baax ñu mu fàtt ñu fàtt leen ci ngir ay ay mbooloo bu ñu dajee dana baax ñuy fàttalente ci seen biir rek loolu rek moo waral moo waral jotaay bi moo waraloon itam ñu taamu ko ngir mu fàttalente ci ak ñun kon sëriñ bi ñoo ngi lay jébbal kàddu gi di la wax ne mbooloo mi fi teew ñëpp koo ci xool sa bopp rek ngay gis ndax koo xool wóor na leen ne kii kat am ngeen lenn lu leen lëkkale muy jenn jëmm ju leen lëkkale kon mbooloo mi say bokki bopp lañ góor ak jigéen koo gis rek xamal ne sa bopp nga xool kenn ku nekk koo ca xool rek sa bopp nga xool kon Mbàkke ñi ngi lay dalal bu baax di la wax marhaban ahlan wa sahlan kon kàddu gaa ngi noonu ñoo ngi